Euh, je vous bonjour, man le Cheikh Niane maa ngi leen di sant bonne et heureuse année bon 2020 bi tamit maa ngi si sant yàlla ndax li ñëw dima yàqal tey fii si bunt bi euh, loolu sant yàlla la ndax maa ngi toog ba di ko nett ci ñi ko ñàkk gënuma si kenn kon nag euh, lii am tey man homme de culture laa boo gisee ma def pour yaatal xale yi mais yàq lu ñu ma yëngu leen ñu ngi joué normal ci biir kër gi waaw li département bi la ñuy dindi te ñun ñëpp ñoo si bokk yam kon nag yóbbu sant ko yàlla bu ñu toogee ba di ko nettali ah alhamdulilah te yàlla moo moo leen lu gën lii kon nag sama wax daal Ah, xam naa dina bari du bari waaye eh, sant yàlla ndax mos nañ ma def lu mel nii eh, kon ak léegi xam nga yàqu na yàlla ba yàlla ma yaat ma leneen waaw waaw xam nga waaw kon nag jarul wax sant yàlla rek sant yàlla sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin ndax gis nañu borom alal yi mu ëppale fuuf borom euh, ak ñi ma gën fuuf yàlla yóbbu leen kon bu ma toogee bëgg te man tamit dama leen di fekki kon yaa naa leen fekki fekk bu rafet kon nag comme que liggéeyu Sénégal te man doomu militaire laa sama papa def na guerre 14 18 kon lii bu ñu ma koy yàqal damay sant yàlla waaw. doomu militaire bu militaire ñëwee nag dama koy yaasal rek ne def leen def leen li nga xam ne moom la yoon bëgg nee nañ nag tali fi bëgg a def waaye dama defoon ni tali bi ñu defoon suñu ginnaaw nii tali bi ndax dañ moom pare nañ léegi li si des ko moom léegi ndekete yoo nekkul loolu lañ lay waxal li ñu def bokkul waaye nag fi moom àdduna la yëpp dañ ko fi bàyyi li ñu waay def daal na nekk lu rafet yëpp si nettali lay mujj waaw quatre-vingt-cinq ba ñu yàqal loolu def naa xama ñaata at la ak léegi kon nag lii damay santaat yàlla rek bu ma toogaat ba toogaat fii di ko nettali te ñu fi gaañ ñu fi deeg ñu ñàkk gënuma ci kenn ah alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf maa ngi tegoon ba teg ay fleur di jekkal fii pour respecter rek waaw mais heureusement que laalu ñu yëngu leen nag ndax buñ ko déggee ni yëngu leen lañu toj loolu moom xam naa ñi ñi xam naa loolu la wax waaye yëngu leen bu jëkk ba mooy dellu rek xam naa nag yëngu leen moom màgg ba lii am ndax ba ma koy defar boobu amu woon sax nit ñu bari waaye dem na ba ñu ñi ëpp loolu lépp si sant yàlla la kon nag yàlla mën nañu may leneen lu gën a ëpp lii waaw yàlla mën nañu ko yokkal ah gouvernement bi tamit ci xalom bu rafet xam naa man li ma def ci culture ah war nañ ma xool de dem allemand yi defal ma ñaari livre te allemand amul caaxaan waaw ah, su ma neexoon tey tey jii ma jóg dem allemand yi bàyyi Iko ka nena kon léew lan ngay wax sama morom naataango yi nga xamante ni ñoo ngi tabax pare di yokku xam nga est-ce que ñoom waruñu ñoo sóodaale lii. waaw léegi daal waaw léegi daal képp ku mu daloon ku war a yokk nga bañ yokkati yokk mu moom baaxul ndax buñ ko xamoon nii kon duñ ko def c'est que en général ñii dañ lay gis nag ngay defar ñuy màttu naan xaaral ba ñu fekk ko fa loolu moom mën naa ñàkk ndax ñun ñëpp ay doomu aadama loo tane sama romb nga ko dimbalee waaw. waaw waaw fay naa leen. di la jaajëfal. ah seen télé bi baax na yéen tamit. looy wax waa Actubuzz. Actubuzz ñu ngi leen di gërëm bu baax seen taxawaay rafet na vraiment gërëmee nañ leen ko yal na yàlla gën leen jàppale jërëjëf.